ayca mbokk yeeg xarit yi nga xamante ne ni yéen ñuy suivre à travers euh, solution TV solution info amaat nañu mbégte jàkkaarloog yéen fii ci l'émission des émissions euh, ci studio Sidi Lamine Niass ma fas yéene si ànd ak Alaaji Sanjogu Mbeng ginaaw bi ñu leen nuyoo nag yéen internet yi ñu leen di euh, waxale ni rek wéy leen di abonné ci suñu ay plateforme di leen nuyu bu baax a baax te leen di ziar dem nag ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm te koy ñanal nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahat Mbacké ñanal ko yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàlla suñu borom defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te koy ñaanal mbooleem xalif yi ci biir réew mi yépp nuyu nag euh, suñu mbokk yi nekk fi ci biir Sénégal rawatina nag waa jasporaa bi nga xamante ni say su nekk rek ñi ngi bàyyi xel li ñuy def fii ci solution TV solution info tey nag ñuy fa yéene waxtaanee lu am solo comme niñ koy baaxoo di defee rek yenn émission yi la indi fii kaddu yi nga xamante ne nii yëkkatee nañ ko fa alaaji Sa Ndiogou Mbengue ñëw ci fas yéene moom it joxe xalaatam ci yooyu la xalaat noonu lay daal di def rek daal di koy nuyu ziar ko bàyyi ko mu nuyoo ko suñu ay internautes alaaji. Eh, ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Hmm. Eh, di dem ba Touba nuyu xarit général des waaye di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké hmm. di nuyu sénégalais yi nekk réew. ñoom laay jiital ci nuyoo bi. Mhm. mais aussi tamit di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi. Mhm. parce que c'est très important ñi nekk bitim réew. Mhm. nga njëkk leen a tàllal loxo. soo ko tàllal loxo ñi ci biir réew mi. surtout ak jafe-jafe yi ku ne xam na ni picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf. seen xalaat ak lépp mu ngi ci réew mi. donc ñu ngi leen di nuyu. di leen ñaanal jàmm. amiin di am ci ñoom mbégte ak kontaante. mais di nuyu. waa réew mi yëpp. Mhm. macha allah macha allah jërëjëf nga ak euh, Mbow. Euh, ñu jaajëfal ko nag moom euh, Modou Diouf mi nga xam ne moom la ñuy àndal ci liggéey bi ak Abdou Toba ak Laye tey nag comme ni ma leen ko waxee rek yenn émission yi daañu ci ànd ak yéen ñu dooree ko nag ak li nga xamante ni nii moo di puy mi nga xamante ne nii mooy def chronique fële ci Sen TV ci émission bi ñuy wax Grande Gueule moom nag am na ay kaddu yum mu fa yëkkati kaddu yu warante jëmale ko ci kilifa diine doxalinu askan wi rawatina nag ci parti bi di Pastef buñ ca noppee ànd ak ki nga xamante ne ni moo di Aïssatou Diop Fall moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ñaari soxna yi nga xamante ne ni moo di soxna yu Ousmane Sonko muy Anna ak Khady eh, ci eh, génn boobu ñu defoon ngir rek jaglelee ko seen borom kër ak wax yi ñuy wax eh, sàkku rek ñaan ngir rek ñu daal di bàyyi seen borom kër moom nag ba mu ci wàññi ca noppee moom nag yëkkati na ci ay kàddu yoo xamante ne nii Sénégal yi am na nuñ ko gisee Alaaji Sanjoogu Meng dina ci ñëw léegi ñu mujjee nag ak ki nga xamante ne ni moo di nijaay son yi bu Jóob muy Moustapha Jaxate moom itam àdduna encore ci euh, ki nga xamante ni nii moo di Ousmane Sonko du ko tàyyi mukk di ko def bii nag dafa wax jëmale ci grève de faim bi nga xamante ne nii Ousmane Sonko mi ngi koy mënee nee na grève de faim bi ay caaxaan képp la dañuy daal di door rek daal di. Euh, jublu si waxtaan wi ànd ceeg euh, Sandiougu Meng ñu dooree ko comme ni ma ko waxee Pouy mi nga xam ne moo nekk chroniqueur fële ci Sen TV ci émission bi mu ci ay kàddu ñu dem xool yi ko daal di dellusiwaat. il faut ñu éradiquer sëriñ si benn combat ci branche bi xam ne moom la gars yi tëral pour combattre sëñ Mountakha bi ñu koy mujjee saaga barki de moo njaale yàggul ba ñu dindee barricade yi saaga nan ba ñu jëlee Ousmane Sonko dugal saaga nan ba fii tey suba ñu koy mujjee saaga tey suba saaga nday façon saaga bu ñaaw bu ne ñu baal ma ci domaine bi nag dañuy waxtaan dañuy wax tel quel pour sénégalais yi comprendre non alaxam ñun si sujet bi laa ma di ci sujet Pape Abdou xoolal taal bi ah, non ah, ah. non dama ne saaga bi maanaam dañ ko saaga laa wax li la sëñ Sani wax Ibrahima Touré waxuma la dara dama ne la jarul nga naan dañu ko saaga dañ ko saaga dañ saaga saaga la dañoo toog ci réseaux sociaux di saaga sëñ Moutakha di saaga sëñ Mahi Niass mais loolu waroo ko wax laa dama koy wax ta ma de dire xaar ba nga jël wax c'est pas à toi de me dire ce que je dois pas dire. sëñ Ba xëy sama de non mais c'est un fii débat la arrête s'il te plaît tu vois la bu ma waxee nga mais kuy aussi je crois que aussi dans le débat nit mën na la recommander nit mën na la recommander non dama ne Aïcha mi ngi noonu alaaji euh, dégg nga li nga xamante ne nii moo di werante boobu la est-ce que jàpp nga ne un homme très respectueux war na toog euh, di nettali loo xamante ne nii lu ñaaw la jëmale ko suñu ay kilifa na muy ay ndendele li nga xamante ne nii moo di ay insulte mu nekk lu ñaaw a ñaaw. waa d'abord euh, li may wax mooy. Hmm. lii bokk na ci li tax ñu ne. du dukk jóg rek war a wax ci rajo. évidemment. Euh, te ñi koy wax it parfois dañuy am raison xam nga bu fekkonte ni ki wax nii dafa ubbi laay fam rek di wax dañuy jàpp ni nit la koo xamante ni peut-être dafa amul benn formation rajo ak télé. Mm-hmm. mooy wax nit la koo xam ne day wax xalaatam mais képp koo xam ne dangay wax ci ay rajo ki télé dafa am kàddu yoo xamante ni bii warta jóg ci sa gémmiñ Euh, moom dafa ñëwoon pour diaboliser. Euh, diaboliser benn parti parce que saaga yi muy wax dafa ko jël attribuer ko benn parti parti boobu mooy parti Pastef moom la attribuer saaga yi mais ci kaw moom dafa def lu gën a ñaaw sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum da doon wax ne sëriñ Babacar nee na ki ma teree naan sama café kookoo ma tooñ maanaam nit waxal ko lu ñaaw du problème mais nit wax ko ko jottali ko ko loolu mooy li ñaaw mm-hmm. parce que moom dafa ñëw pour jot li mm-hmm. kàddu yi mu wax yow ñemewoo cee jaar parce que gis naa sànq bi ñu tegee élément bi bi muy waxee wax ji da nga tikke mm-hmm. parce que xam nga ni loolu du lu ñu war a wax donc nag li garaaw nag mooy ñii nga xam ne euh, waruñoo wax ci télé wala wax moom wax na lu garaaw te xamu ko parce que femme baa nga koy jubbanti di ko delloo si pour mu nekk nit mais yëgul ni Eh, def na lu grave dérapé na mhm. parce que foofu dafa waroon a parce que lu mu warta wax la dafa waroon a bàyyi parole bi rek bàyyi les autres tuub parce que glissé na mhm. eh, loolu nag dama defe ne suñu boroom a ci dugal loxoom parce que parfois nga am yéene yàq ay nit far yàqu looloo ko dal moom maanaam moom da doon jéem a yàq ak kuréel mhm. mais moom mooy yàqu ci li nga xam ni mooy mbir bi parce que moom amul respect d'abord ci kilifa yi parce que man ñemewumaa jàkkaaru benn kilifa di wax naan mm-hmm. parce que nit ñi bu ñuy wax sax du ñu tudd tur du ñu ne sëriñ diw dañ naan kilifa diine yi ñuy saaga maanaam mm-hmm. loolu da ngay maasaale ñëpp mais boo seppee nit mm-hmm. dafa cité ay noms daal di wax ne diw sax ci. def nañ ko nii wax nañ ko li wax nañ ko li jóge ci loolu daal ne wax nañ li way juram loolu dafa nekk loo xamante ni euh, wax ju doy waar la donc Euh, nañu delloo si xel yi te xam ni euh, saaga yi kenn waru ko attribuer kenn ne diw moo koy def wala diw moo koy def saaga rafetul ak ci ku mu mën a jóge amul kenn fenn foo xam ni saaga lu rafet la saaga day wàññi sax euh, dëgg gi nga xam ni moom ngay wax nit ki maanaam tey bu may wax dëgg bu ma ci dugalee saaga rek day yàq dëgg gi mm-hmm. kon donc saaga am na ñu bari ñoo xamante ni bi tey mm-hmm. Euh, ñi ngi bitim réew di wax ni ñi ngi féeteeg diw mais au contraire damay wax ne est-ce que diw la ñu féeteel. Mm. parce que dañuy jàpp damay jàpp ni ay nit lañ yoo xam ne ñu ngi wax ne ñu ngi féeteeg diw mais est-ce que diw moom la ñu féeteel parce que bu fekkee ne man dama diw ba noppi di saaga kon damay bëgg a wax ne diw laay saagaal. Mm. moo tax man la plupart ñi féeteeg di wax ni man diw laa àndal ba noppi di saaga pour man jox féeteeluwu ma leen kuréel googu. Mm-hmm. di maman que ñëpp dégg nañ Ousmane Sonko moom ci jëm boppam mu wax ni. képp koo xam ne yaa ngi ñàkkal worma mm. kilifa diine bokkoo ci man loolu wax la joo xam ne wax ju leer la mm-hmm. ñi mën a wax nag ne ci yow laa bokk ak ki ne la ki wax lii bokkoo ci man keneen ku forcé wax doxalee neneen na nit ñi jàpp ni kooku bokkul ci moom waaye nit la koo xam ni peut-être daf ko bëgg mbubboo pour yàqal ko kon donc yow boo toogee ci plateau di wax waroo jël saaga yooyu di ko féetale parti boobu parce que ci biir parti boobu képp koo xam ni kii responsable nga ci. wala nga am ci baat ñoom ñëpp wekk nañ ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi. Mm-hmm. donc nag waa ji moom defe naa ni euh, da doon jéem a toroxal ay nit far torox. Mm-hmm. loolu nag sunu borom moom moo mën a àtte. Mm-hmm. parce que yàllaa ko defal lii nga xam lii mu def nii. sunu borom moo dimbali ñële ba moom mu dugg ci pax mi maanaam da doon gas kàmb di wut kum ca dugal mais moo ca jiitu mhm. waaw parce que moom nit ñi gis nañ ñàkk wormaam ñàkk respecté gi nga xam ni Euh, wane na ko ci biir mbir mi. Mhm. voilà en tout cas euh, doy na waa mu nekk itam lu ñuy ñaawlu parce que tamit télé ñëpp ñooy lay seetaan du la suivre kilifa yeeg mag ñeeg ndaw ñi moo tax ay say kaddu rek danga koy wax di wodd say su ne même su fekkee ni yaa ngi joxe sa xalaat ki ngay waxal faroo it ak moom ñu dem ci leneen ci keneen jigéen bii di Aïssatou Diop Fall yëkkati na ay kaddu jëmale ko ci ñaari soxna Ousmane Sonko yi ñu dem déglu élément bi ñëwaat. Euh, ñoom déjà li ñu waroon def ñoom jabaru Sonko yi nga xam ne ku ne xam ne ni euh, dañuy cinéma nii di jouer ak jàpp na Sonko moo yàgg taxaw yàgg naa taxaw wax na Sénégal ay émotion la ñuy demee Pape Alé Niang tëggu ko demu jël ñaari jabar yi tëgg leen tëgg boo xam scénario boo xam un mauvais scénario teg leen teg leen ñoom ñaar ñëw def seen muuraay seen muuraay waane ñëw toog dégg nga naan ñu wii seen Sonko yàlla la kee na du lay xar du rey ginaar du rey mbóot kii yoo kee naan bu bu waree lekk ji sax daf may woo ma ne ko demal ba muy dem si bëte xaa tàggu na ko ba muy dem si bëte ba sonko ba sonko ne fi ñuq dem seeti aji saar ak ay dangal aji saar ay saar ay cheveux cinquante mètres aji saar njoolaay aji saar mun leen fi ñuq ñoom ñaar kii takk veer kee def ay xaw ma lan ay air ñoom bu ñu aayoon nee nañ la jox seen jëkkër ñu faj ko bu ñu mënoon faj seen jëkkër ko so aji communication te euh, Pape bu demee bu woon sentiment ak émotion nee naa Pape Alé nekkatul journaliste mi ngi noonu alaaji euh, kàddu ay sëtu joppaal yi ak fi situation Ousmane Sonko toll ba ay jabaram génn di sàkku à ce ñu bàyyi seen borom kër parce que gis nañu na nga xamante ne ni moom la nekkee euh, fële ca principal est-ce que ku am tuuti humanisme war nga yëkkati kàddu yi jëmale ko ci ñoo xamante ne nii ci ay jafe-jafe la ñu nekk. waa xam nga àddina moom euh, loo xamul boo ciy wax rek dangay ngay daal de feeñ. Mm-hmm. xam nga Aysatu aussi ñu ngi koy nuyu de passage. <coughs> kàddu yi mu yëkkati maanaam ñii dañoo dund lu mu dundul. Mm-hmm. ñu xam lu mu xamul. Euh, ñii xam nañ euh, mbëggeel yàlla may na leen boroom kër. yoo xam ni nekk nañoo ak moom. Mhm. Euh, ñu bëgg seen boroom kër. am fu ñu ko teg. Mhm. yàlla it jox na leen diine ñuy muuru. macha allah muuraay gi mu nekk loo xamante ni parce que ay sa li mu xam rek la wax maanaam muur say muuraayu say daal moom moo ko wax mhm. <laughs> peut-être moom muuraayam yi muy muuraaye. Euh, boppam lay gis ci li nga xamante ni mooy maanaam dafay juger nit ñi selon moom. ni mu mel waaw parce que mu leen juger. man dama jàpp rek ne boppam la jël jàpp ni moom. Euh, comme que jabaru sonko yi gëmuñu dara mais du jabaru sonko yi lay wax mais maanaam dafa jàpp ni moom peut-être ni mu mel euh, noonu la ñëpp mel maanaam peut-être am na loo xam ni euh, peut-être moom góor jaralu ko ko waaye mais loolu tolluwaayam lay waxee maanaam moom fi mu toll. Mm-hmm. moom lay waxee parce que li mu xam parce que est-ce que moom actuellement mi ngi ci sëy donc <laughs> je pense que ba bi may mujjee dégg déggaatu gu ma. est-ce que amutoon ñaar yoo xamante ni bi kii na. Mm-hmm. kon donc moom am na loo xamante ni bi euh, peut-être foofu lay waxee. waaw mm-hmm. ah, mais alaaji ku am tuuti xol affaire bi dépendre sax si ni nga mel yow nga koy juger nit ki mais nga am xol tuuti nit ku nekk si ay jafe-jafe ba ñu génnee li nga wax noonu est-ce que xam nga mbir mi xam nga mbir mi maanaam dafa am loo xamante ni dafa am ñoo xam ne ci seen àddina mm-hmm. Euh, ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo am problème maanaam du ñi ñuy waxal ñoo am problème déedéet parce que dafa am situation xam ne su présenté woo nga am ci beneen gis-gis mm-hmm. euh, na nga dem faju ji maanaam dafa am ñu war a faju ji ci réew mi ah. loolu non billaay c'est que ñun dañu jàpp ni euh, nit ñi ñi ñu war a yóbbu ngir faji leen mm. dañu jàpp ni fekk soloy sagar mm-hmm. nekkoo ci mbedd mi di dóore pour ñun ba tey wér nga mais dafa am yoo xamante ni bi wéradi la mm. parce que li njëkk a tax mu nekk wéradi rek mooy ay jigéen ñoo xamante ni bi dañuy dañu nekk ak seen borom kër mm, mm. nga gis li Ousmane Sonko sibir depuis ñu koy dund ñu ñëw étaler loolu teg ko ci penc bi mm-hmm. wax ne li yëg li yëg yëpp gis nañ ko et pourtant kenn mosu leen a dégg ñu wax mm-hmm. donte wax teg nañ seen kaawi doom li nga xamante ne bi tromatisme bi nga xamante ne bi ñu ngi ak moom li li ñuy dund ak seeni i dëkkandoo sax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund mhm. loolu yëpp ñu ñëw teg ko ci pénc bi pour wane ni ñoom dañoo bëgg dund ci jàmm ñaan yàlla ñi nga xamante ni bi eh, ñoo moo ñooy seen ko ki nga xam ne mooy seen borom kër pour mu mën a dellusiwaat seen loxo ginnaaw ñoom bu ñu demee ba gis situation bi mhm. ñu ñëw di ko wax ngir askan wi dégg ko ngir ñoom ñu taxawu seen jëkkër nga ne waruñoo doxalee noonu. Mhm. kon yow war nga xoolaat sa bopp ndax wér nga. parce que defe naa ni nit ku normal am na foo xamante ne bi doo fa dugg bu fekkente ne bi wér na mhm. mais nag xam nga fu ñuy tàqalee ku wér ku wérut bu ñu demee ba nga xamante ne bi yow ma jigéen. Mhm. yaa ngi gis loo xamante ni bii lu normal nii leen war a demee nga ne demeewu ni parce que lii mu demee nii ak nii di ko jéem a defar wala ngay jéem a ñàkkal fayda loolu. Mhm. nit ñi di ñëw ak seen naqar yow gisatoo naqar gi. Mhm. yow yaa ngi gis leen war ngaa faju ji dafa am ñu bari ñoo xam ne ci réew mi dañu war a dem faju ji. Mhm. jàpp naa ni nag moom ci ñi war a dem faju ji la. parce que nit ñaa ngi koy classe di ko wax lu ne mais dañ ko war a ñaanal yàlla. mais moom mel na ni loolu faale wu ko de. waaw moo tax moo tax moo tax moo lay la bu génnee tegaat beneen jéego bu moo lay wan ne la feebar bi gën naa xóot. mës ngaa gis dof bu yóbbu boppam faan déedéet dañ koy yóbbu parce que nit ñi ñooy dem ba xam ni yow wératoo maanaam le fait que nit ba gis ni hmm. yow mi wératoo ñu jël la yóbbu la hmm. mais ki nga xam ne moom yëgut ni dal na ko ma mos ngaa gis dof def nga dina yëg ni dof la. déedéet mosul yëg ni dof est ce que parfois tamit nekkul soxor parce que Aïssatou Diop Fall saa suy wax si Sonko rek feebar la loolu yëpp feebar la. xanaa xamul loolu feebar la kii dafa am haine dafa am yoo xamante ni bi jàngoro la hmm. ci nit hmm. waaw dafa am nit ñoo xam ne ma di ma jigéen dañuy dem ba dootuñu yëg lu metti hmm. maanaam lu metti dal la dootuñu koy sentir maanaam jàpp nañ ni fu ne mën nañ fa kaf mën nañ fa fo fu ne mën nañ fa wax lu leen neex maanaam jàpp nañ ne du dara la fet que ñu jël problème ñu jëm ba jàpp ni lii du dara mën nañ cee waxee nu leen neex ba léegi nekk ci cadre fi politiciens yi ne moo lay ne la wérut. te moom sax daf fee bàyyi woon aji Sarr ne dootul waxati. ay waxam pourquoi wérut wérut non non non non non du mu hmm. jigéen wérati da dugal ci lu ne. nit ki bu fekkente ni bii wérut dañuy war a xam ni wérut parce que wax yi mu wax dadut waxi nit xam nga tey mën nga analyser waxi nit mais situation bii nga ñëw di ci wax lii wax dëgg fa yàlla waxi dof la. yaa ngi de dommage que nag réew mi Pawlish moo ko comprendre mhm. <laughs> Pawlish moo ne waxi dof wallaay day dox day dox mhm. parce que le fait que Pawlish wax loolu loolu c'est très important mhm. nekkul ni ñuy wax rek ngay reede mooy waxi dof mais lii mu wax nii waxi dof la mais dommage que waxi dof jii am na ñoo xam ni lii lañ bëgg ku leen koy waxal tamit waaw donc moo tanewul sax parce que moom parfois mu wax loo xam ne non Pawlish non dama ne dafa comprendre lan mooy dox ci réew mi mm-hmm. waxi dof mm-hmm. parce que doo jël parce que le fait que ñuy jël ay satu di ko teg mu ne mi ngi analyser di wax <laughs> koo xam ne dañ ko war a faji di ko duut ay pikiir jamono ji ñu toll nii alaaj bàdd bu la déggee du la tontu mais mais mais waxi wax ji du waxi nit <laughs> parce que nit du nekk ci ay xat-xat nekk ci ay difficulté comprendre nga mm-hmm. yow lépp loo xamante ni bi moom nga wax xam nga parents nit ñi dañuy xool di gis mbir man dama naan nit ñi parents yi est-ce que du dañuy nelaw wala je ne sais pas parce que li ngay wax tey ëllëg si mën na mëpp ci sa kaw. nan nga bëgg nit ñi xoolee la. Mhm. ay surtout amoon na fi histoire boo xamante ni bii euh, bëggut nit ñi wax ko ci kaw bëggutoon nit ñi wax ko ci kaw. comprendre nga. Mhm. waaye laa boo ciy wax bëggoon na bëgg na nit ñi wax ci rafet. Mhm. maanaam parents yi da ngay teg sa bopp ci yenn place yi. yoo xamante ni bii tey boo ci tegee sa bopp nga xam. ndax lii war nga ci waxee nii wala nga teg ci sa place sa mbokk bu ci nekkoon. Mhm. ndax nan nga war a waxee parce que situation bi jabaru Sonko yi du dund. Mm. defe naa ni ku ciy wax ku ne. Mhm. war nga wax wax joo xamante ni bii wax ju rafet la. Mhm. mais façon bi mu waxee vraiment euh, man jàpp naa ne nag man dama jàpp ni. Euh, am na ay problème quoi moom moo am ay problème ñuy continuer waaw léegi nag euh, li muy wax nii mm. jabaru Sonko yi dañ ko war a ñaanal waruñu ko ci mere nañ ko mm. ñaanal te xam ni mm-hmm. problème bi du ñoom mais kiy wax ci ñoom la d'accord leer na macha allah mi ngi ko mboor kàddu yi am na solo lool nañu bàyyiwaat xel rek nit moom li ñuy wax sa noon sax doo ko yéene musiba te Sénégal loolu lañ fi euh, nemmeeku euh, temps yi lu waaye nit xamal ci lu bon sax war nga ko suturaal asamal ak nag koo xamante ne nii xamaloo ko dara lu ñaaw donc dañuy jeexalee nag ak ki nga xamante ne nii moo di nijaay suy bu Diop muy euh, Moustapha Diakhaté moom itam am na ay kàddu yoo xamante ne nii yëkkati na ko. ko ñu dem xool yi ko dellusi grève de la faim moom sañ na ko parce que amul loi bu nit ci réew mi bu teree grève de la faim xëy na l'islam moom dina ko tere jullit waaye loi yi moom terewul grève de la faim euh, am na ci droit maintenant li ma jàpp mooy jàngat bi ñu ci mën a jàngat rek mooy grève de la faim Ousmane Sonko bi c'est un c'est un signe de lâcheté c'est un signe d'une indécente lâcheté de Ousmane Sonko. pourquoi. nit koo xam ne woote mortel combat. ne kaay leen faatu prison waroo ragal kaso parce que bàmmee la gën a xat kaso nit koo xam ne dangaa woote gatsa gatsa waroo ragal dem kaso nit koo xam ne dangaa woote cuuki fin war ngaa mën a xam ne sa bakkan mën na cee nit koo xam da nga ne président Macky Sall dana ma rey baa ma rey ko war ngaa xam ne mën nga caa dee ci xeex boobu kon bu demee bay utiliser grève de la faim c'est que non seulement man c'est un signe de lâcheté mais c'est un signe il a échoué lamentablement parce que a cigarette moo gën a yar moo gën a nooy xarum yar mais li garaaw du loolu woo nit ci ci dee ba fukki nit ak ñeent faatu ci 2014 fukki nit ak juróom benn faatu bëkki démb ay milliards yàqu ci pour bañ a toog kaso nga naan damay def grève de la faim yemul foofu mu jël ay jabaram di leen utiliser pour ñu di ko tinul bay tinu jabaru euh, Macky Sall mais moom ma nga ca kaso ba bi bi bi su fekkee dañ koo def te tàgguwuñ ko matul jëkkër suñ ko tàggoo mu bàyyi leen c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ma gis kilifa politique ay jabaram di génn di jooyum jafe-jafe mas mu Diop génne nañ ko réew mi Mamadou Diop tëj nañ ko jabaram wonkut Ablaye Wade tëj nañ ko yoon yoon William Moussa Wong ak Amath Dansokho Ablaye Bathily xam man damaa mas a dama koy wax monsieur toujours dama koy wax malheureusement xëy nit ñi Sénégal booy wax dañu la dul déglu Ousmane Sonko dañ koo solal daal lu kilifa wu ko ëpp mais tolluwaay bi moom la attanu attanu kilifa kilifa gis nga ñun day feenu yaroo fi ñu yaroo ci Kajoor ak Bawol ak jëm Fuuta buñ masaan di xare kuñ jàmbatu balu gannaaw dañ lay jékkale ngir bañ nga woy wu ñaaw ku ñu jam bal bu dañu lay rey ngir bañ nga nga am nga bañ am euh, wayu ñaaw ay ca mi ngi noonu euh, jërëjëf Alaaji Modou Diouf euh, saa nag <laughs> wax ji daanaka ak waxu Aïssatou Diop Fall bi sorewul <laughs> j'espère que j'espère que doo leen boole si même pax bi rek ñoom ñaax mais koo xamante ni nii ay kàddoom lenn la mos a doon mooy que ni bis bu ma demee ba dese benn nooyi sax du tee dinaa rés dinaa résister tey Moustapha Diakhaté taxaw di wax ne Sonko li mu def euh, lâcheté la et que joxe na plusieurs exemples ci ay Abdoulaye Wade ak ñu fi nekkoon démb ñu tegoon leen yi coono est-ce que waxam moom itam mu war na doon taxawaay bi en tant que kilifa di mag. waaye ah, sax xam nga ni ñaar ñi nga teg ñëpp ay xarit lañ muy Aïssatou ak euh, Moustapha Diakhaté ay gaañ lañ. waaw hmm. ah, moo tax gis nga yàlla ni muy boole ah, ay te olof nee na wax ma sa xarit. Hmm, ma wax la ki nga doon ay gaañ lañ. Hmm. <laughs> moo tax euh, gis nga leen même position yi ñu nekk. waaw ah, mais Moustapha nag moom moo tontu boppam. xam nga moom xamul ni li muy wax noonu Ousmane Sonko ko ne mortal combat di nga ma rey wala ma rey la. yoon wi mu jaar ban yoon. dafa grève de faim. grève de faim forme de lutte la. parce que nan la war a xeexee fi mu toll dafa bëgg ñu tëj ko Ousmane Sonko du def benn pexe bu boobaa loolu mooy lâcheté. ñu tëj ko mu toog di añ ak reer tegalee tànkam jàpp njàmburam defut benn action. wala loolu la bëgg. jël na jabaru Ousmane Sonko yi nee na bokkuñu ak euh, jabaru Abdoulaye Wade musu ko def kii musu ko def mhm. d'accord mais fi Sonko yegg si musuñu faa yegg si li Sonko daj benn opposant musu ko fi daj lañ ko teg mm-hmm. amul kan lañ ko fi mës a teg diiram ñaari at ana ban président lañ fi mës a barricade këram tëj ko këram cinquante cinq ana ban euh, opposant lañ fi mës a wax ne ko doo fi amal benn dox maanaam li ko daj waa partem daj ko kan moo ko fi daj moo taxit bu gisee ay soxnaam génn mm-hmm. tamit bu mu ko bett parce que moom moo daj lu kenn dajul mm-hmm. Sonko du dàll bi nga xam ne mu dane dañ ko solal euh, dàllu cër dàllu kilifa mm-hmm. bu ko jotul bu ko jotul ah déedéet dàllu kilifa bu ko jotul ah kay jot na ko kay parce que Sonko bi muy ñëw moom dafa indiwaale dàllam bokkut ci dàll yoom yi ñu daan sol mooy anti mm-hmm. moom moo tax xamut sax li muy wax ñoom seen dàll yooyu euh, du Sonko du ko sol maanaam bu ñu gisoon dàll yi ñu daan sol Sonko sol ko gars yi du ñu ànd ak Sonko maanaam Sonko dafa yor yeneen dàll yu bokkut ak ñoom seeni dàll moo tax dàll yooyu moom mënut a xam ban pointure la tàmbalee ak fan la yam mm-hmm. parce que nekkuñu ci même fu ñu bokk nekk mm-hmm. léegi nag li nga xamante ni moom dem na ba ci biir sax ñaan na ni mag Sall bu mu euh, faale Ousmane Sonko ci grève de faim bi looloo tax pareen saay euh, njiit ñenn ñi di ko jege baaxut parce que dafa am fu réew di toll dafa am ñeneen ñoo xam ni ñoom ngay soxla. Mhm. tey jii président Macky Sall mardi taali bu seetaanoon Ousmane Sonko ba leneen xew. yàlla bu ñu àgg foofu way la wu koy topp ilaa yow mi diin mhm. kenn du tudd ci way wi mu Moustapha Diakhaté dañ naan président Macky sàll moo seetaan opposant ba leneen xew xelal mhm. du ñu xalaat mukki ko ko xelal Saddam Hussein am na ñu bari ñoo xamante ni bii def na leen lu ne. peut-être ay nit ñi ko nañ ci ginnaaw di ko xelal di ko jox ay kii. mais histoire li mu retenir mooy taxawaayu Saddam Hussein ba muy gazé mooy population kurdi kurdi yi di leen gazé arme chimique. pourtant mën na nekk ni Saddam nekkutoon ni moom moo nekkoon boroom xalaat boobu. mën na nekk ni dañ ko ko xalaataloon xelaloon mais pourtant Saddam la ñuy wax du dëkk. Mhm. tey jii Hitler li mu def ci àddina bi yëpp mën na nekk ni ñeneen a nekkoon ci ginnaawam di ko xalaat. Mm-hmm. mu bëgg a fexe ba juif dootul am di leen dugal salle de concentration yi. Mm-hmm. tey jii moom la ñuy wax. Mm-hmm. Marguerite Thatcher mi nga xamante ni bi seetaanoon na nit grève de faim ba faatu nga xamante ni loolu way la woo xam ne da koo topp ba bënn gën ñu koy wax dame de fer. et pourtant mën na nekk ni ay ñeneen a ko doon xalaatal mais ñun ñëpp xamuñu leen tey. moom la ñuy cité noom. te ay sëtam ay kiiwam fu ñu tourné bët boobu dañ leen koy xool daal ne ñii kii de la fi seen kii defoon lii donc ñii ay figurant lañ ci mbir mi ay ñoom Moustapha Diakhaté duñu acteur ci mbir mi histoire du retenir seen nom ñoom Moustapha Diakhaté nii. mais ay wax day des de alaaj non mais histoire dama la dama la bëgg a wax ne la maanaam am na fu ñuy toll. Mhm. bu ñu fa tollee ñii kenn histoire du retenir seen nopp parce que ñi ay nit lañ yoo xamante ni maanaam kenn du leen boole sax ci mbir yi mm. maanaam ci jamono ji mën nañuy wax seeni wax parce que jamono ji ñun ñi dañoo fekke mm. tey jii jamonoy Lat Joor am na ñoo xamante ni bi doo leen dégg déedéet am na jamono yoo xamante ni bi tey eh, Senghor ak Mamadou Dia am na ñoo xam ne doo leen dégg sengoor rek ngay dégg li mu def Mamadou Dia mm-hmm. du dëgg pourtant am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doon manigancé ci suuf mm-hmm. mais histoire du retenir seen nom du tee seen tur boo bokkee nag ci ñi nga xamante ni bi yow histoire ëllëg day tax ñu daa dee fàttaliku ne diw mm. nga xam ni ala kulli alin histoire dina retenir sono te dina la wóor ne la Ousmane Sonko histoire day retenir noonu que ni mu nekk président que ni mu bañ koo nekk ala kulli alin Ousmane Sonko dootuñu ko fàtte ci taarixu Sénégal maanaam ku mu jamonanteel nag war ngaa xool bu baax a baax te xam ni histoire Ousmane Sonko histoire la boo xamante ne bii waxuma la Sénégal waaye dana bëtt frontières yi. bëtt na ko ak non dana ko gën a bëtt. Mhm. ak nu mu mën a demee nag. dana bëtt frontières yi. Mhm. léegi nag yow boobu jamonoon teeg moom faaw nga xool noo cay duggee mu rafet te ñii boo leen dégloo doo ci dugg duggin wu rafet. kon donc defe naa ni président Macky Sall ñii dañu ay conseil am. Mhm. ñii waru leen déglu. buñ ñee ko defal na dindi luñ ko digal na def contraire parce que loolu mooy doon li nga xam ne moo gën ci moom tey te mooy gën ci moom ëllëg parce que nguur day jeex ala kuliyal mhm. buñ continuer woon munu fee defaat ci réew mi lu mat fukki at ak lu mu mënoon a continuer mhm. donc nag yow loolu te après say njaboot dañuy continuer di dund ci réew mi mhm. say sët dañuy continuer di dund ci réew mi ñooñu yow mi nga xam ne yaay seen maam dafa am loo leen war a wàccal ci réew mi mm-hmm. donc moo tax maa ngi ñaanaat encore yi fois président Macky Sall ñii nga xamante ni bi ñooy wax nii mu bañ leen a bàyyi xel mu bañ leen a déglu mm-hmm. parce que ñii ñu koy dugal lañ ci loo xamante ni bi ëllëg du am way woo xamante ni way wu rafet la et pourtant mën na weesu gut mm-hmm. mën na deltu ginnaaw ci lu bari doxalee noo xamante ni bi lépp dina daal day rafet mais ñii ñoom wax dëgg fa yàlla histoire du retenir seen nom. macha allah ak moo ayca ñu bàyyi la nga tàggatoo rek waxtu wi jot na. jërëjëf di am mbégte ak kontaante. Mhm. di gërëm ñëpp. macha allah <laughs> incha allah kii allah ci kàttan incha rabbi en tout cas waxtaan wi am na solo na ko nit ñi déggee rek nu mu gën a rafetee te aussi ñu bàyyiwaat xel bu baax ñun ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci micro yi tey rafetal kàddu yi jëmale ko nag ci boor bu nekk muy ci kilifa diine yeeg citoyen simple yi fi nekk ñuy jaajëfal nag bu baax a baax ki nga xamante ne nii moo di juuf Diouf Abdou Top ak Lay Diallo remercier itam yéen internet yi ñu doon. bàyyi xel woy leen di abonné ak ay partager li nga xamante ne ni moo di émission yi di leen jox di daje nag beneen aljuma ci l'émission des émissions bye bye.